والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر وبيان كل منهما والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاحي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره, فسره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu dellusiwaat incha allah ànd ak al imam xaafis ibn ahmad al xatami xam ngeen ne ci li weesu leeral na lu bare bari ci tawxid bunt bi mujj mu leeral al ibaada xam ne mooy jaamu yàlla ci boppam mu làmboo moom itam tawxid bi loolu lépp jàllee nag nit ki ngir mu mën a aaru ci diineem dafa aajowoo ñaari mbir bi ci jëkk mooy mu xam tawxiitam bi ci des mooy mu xam lu ko mën a yàqal tawxiit jooju loolu mooy safaan ba mooy bokkaale moo tax mu ne fii faslun fi bayaani duddi tawxiid nee na bunt bi daf ci leeral safaanub tawxiid wa huwa shirku nee na safaanub tawxid mooy bokkaale wa annahu yanqasimu ila qismayni mu ne moom bokkaale moomu dafay séddalikoo ñaari xaaj asgara wa akbara bu mag bu ndaw ak bu mag maanaam dafa am bokkaale bu ndaw am bokkaale gu mag wa bayaani kullin minhuma ak leeral kenn ku ne ci ñoom ñaar ñoo ñi kon safaanub tawxiid ci lay waxtaan tey nit ki mën naa laaj ah waaw jàng lu baaxut moom baax naa safaanub tawxiid da mooy bokkaale kon ndax jàng bokkaale lu baax la mu ne axukaay des koo war a xam ndax nit ki bu xamee yoon wa jub ba di ca jéem a jaar su xamul yoon wa dëng mën naa jékki-jékki jàdd te du ko yëg moo tax xudayfat ibnu lyaman radiallahu taala anhu saxaabi bu màgg la dafa doon wax ne nit ñi dañ daan laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàmm rek ak lu baax rek man ma di ko laaj aw ay ak lu baaxut lu tax mu ne ngir ragal caa tàbbi ndax kat ki xam lu baax képp yam ca te xamut njaaxum yéeg yu bon yi nga xam ne moom la nit ñi ràbbal diine di ko ràbbal ñu baax ni mën naa tàbbi ci lu baax te du ko yëg lu baaxul te du ko yëg moo tax Omar ibn Xataab radiallahu taala anhu daf daan wax ne tunqadu ora al islaami urwatan urwa ida wulida fi l islaami man la yaarifu al jahiliya nee na lislaam mën naa dem ba néew doole di finciku di rewenciku ndànk-ndànk su demee bañ am nit ñoo xam ne lislaam yi kese lañ xam te xamuñu dara ci ak ceddo suñ ki góorgóorlu nag ba xàmmee lislaam ba mu wóor na ci lii nga war a jaar war ngaa xam itam safaanu loola ndax nga mën koo wattandiku kon mu allif bi loolu moo tax buntu tey bi mu di ci jàngale bokkaale ngir bëgg nga xam lu mu doon ndax nga mën koo daw tawxiid nag xam nañ ne ñetti xeet la wala déet bi ci jëkk mooy la ñuy tuddee tawxiidu rububiya mooy lan ndax am na ku ko xam ci lum jëm moom tawxiidu rububiya moom ah soo amee ku ko xam mu def ni ma xool waaw ci lum jëm mu ngoog ci jëfi sunu borom tabaraka wa taala wéetal ko ci ay jëfam moom moom sunu borom tabaraka wa taala moom la ñuy tudde tawxidu rububiya doo fekk loo xam ne yàlla rek moo jagoo def ko nga di ko jox keneen soo ko defee def bokkaale kon tawxidu rububiya ni mu doone tawxid muy nangul yàlla yim def yépp nangu ne moo bind mooy wërsëgal mooy woppal mooy rey moo xam lépp lépp lu yëngu ci biir àdduna moo ko yëngal nga gëm loolu ne tawxiid la kon it boo gëmoon safaan bi wala nga gëm ne keneen a koy def loola lu muy daal di tudd bokkaale shirk lay tudd boo gëmee ne ki yor bakkan yi wala sa bakkan yow di la rey ka dekkal diw sàngam la wala malaaka la wala jinne la wala seytaane la su boobaa yaa ngi bokkaale ak yàlla ndax loolu yàlla rek moo ko yor moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan giñ di waat daf lay wax ne walladi nafsu muhammadin bi yadi maa ngi waat ci ki nga xam ne bakkanu muhammad ci loxoom la nekk noonu la daan waate kooku mooy suñu borom kon soo demee ba jàpp ne sa bakkan ci loxo keneen la nekk loolu nuñ koy tudde bokkaale bokkaale ci ban tawxid ci tawxid rububiyya kooku nag musiba mu mag a mag la soo demee ba jàpp ne lay wàcce tawba di indi wërsëg wa loola du yàlla waaye leneen la loola yaa ngay bokkaale ak moom kon bokkaale dana tàbbi ci tawxidu rububiya loolu nag nit ku ca tàbbi moom tàbbi nga ci lu garaaw ndax yéefar ya nekkoon màkka sax gëmoon nañ ne yàlla moo bind asamaan ak suuf ak li ci biir wala in saaltahum man xalaqa alsamawati wal arda la yaqulunna allah yéefari màkka yi soo leen laajoon kan moo bind asamaan ak suuf dañ lay wax ne yàlla moo ko bind kon ñoom amoon nañ li ñu tudde tawxidu rububiya waaye nag am ko képp yam ca daa doyut ñaareelu tawxid ba mooy tawxidul asmaai wa sifaat tur yi sunu borom tabaraka wa taala tudd tudde ko boppam ci alquran wala ci sunna melokaan yi nga xam ne moo ko melale boppam ci alxuraan wala ci sunna nga gëm ne loolu ay melokaanam lañ te melokaan yooyu doo ko jël di ko jox mbindeef ndax soo ko defee tàbbi ci bokkaaleb ci tawxidu al asma wa sifaat nim ni melale boppam it soo ñëwee soppi ko nga dindi ko wëtal ko weneen maanaam mu bokkut ak mi ci sa borom jublu kooku moom it bokkaale lay daal di doon ci tawxidul asmaa wa sifaat loolu day feeñ ci ngirum ñi nga xam ne dañuy interpréter jëfandikoo li ñuy wax tawil muy maanaam yi dañ koy soppi jiital seenum xel ne yàlla daal waruñu koo melale nii waaye nan ko melale nii loolu su ko nit ko defee day tàbbi ci bokkaale ci buntub al asmaa wa sifaat ñetteelu tawxid ba mooy ban muy tawxidul uluhiya ci lum jëm moom lu ma ta xam la de ci jëfi jaam ñi la jëm wéetal yàlla ci la ngay def yow kon wéetal yàlla ci ay jëfam ñaareel ba wéetal yàlla ci ay turam ak melokaanam ñetteel ba wéetal yàlla nag ci say jëf ak say jubluwaay moo tax ñu tudde ko tawxidul qasdi wa talab kooku nag mooy mooy su fekkee am na tawxiid bu mag nag boobu mooy bu mag bi ndax ku góorgóorlu woon ba am tawxiidu rububiyya nga xam ne nangu nga ne yàlla mooy bind mooy rey mooy def nangam mooy def nangam ba noppi nangu ne melokaanam yim yor ay melokaanam a turi ay turam la ba noppi nag wëlbati ko di bokkaale nag ci say jëf boo jaamoo yàlla tey jaamu keneen boole ca la nga amoon ci tawxiid du am njariñ kon nag kooku mooy bu mag bi moo tax tawxiid boobu mooy sababu irsaali rusul yonent yi yàlla yónni tawxiid boobu moo taxoon mu yónni leen moo tax abdullah ibnu abbas dafay nettali ci nettali boo xam ne al imam ibnu jarir al tabari indi na ko alxaakim indi na ko teg ca ne wér na ci charte muslim ci charte buxaari al imaamu zahabi dëppoo ca ak moom maanaam muy nettali bu wér kon ibnu abbas ne diggante aadama alayhi salaam ak nuux alayhi salaam asharatu quruun la maanaam fukki siècle la junni at ñoom ñépp nee na kaanu ala shariatin min alxaq diggante aadama ba ci nuux foofu bokkaale amu fi ñépp ci tawxid lañ nekkoon mu teg ci mu ne faxtalafu am ca ñoo xam ne nag bokkaale dafa tàmbale feeñ ci seen biir fa baata allahu nabiyina mubashirina wa mundirin kon ñoo ñépp ci njub lañ nekkoon ba taw ba bokkaale tàbbisee loolu moo waral yàlla yebal nuux ci ñoom ngir mu woowaat leen ci tawxiid waaye la tàmbalee ci fañ binde suñ maam aadama mu wàcc fii fi suuf fukki siècle ba ba nuux di feeñ ñooñu ñëpp tawxiid lañ nekkoon xamuñu woon bokkaale nettali nanu moom abdullah ibnu abbas ci nettali bii nga xam ne mi ngi ci saxiixul buxaari sababu tàbbik ñooñu ci bokkaale comme ni ko borom bi tuddee ci suuratu nuux juróomi tur yooyu mu tudd muy wadd ak suwaa ak yaxuus ak yaxuuq ak nasr juróom ñooñi nii leen ko abdullah ibn abbas nettalee nee na haadihi asmaau rijalin saalihin nee na lii turi nit ñu baax lañu woon min qawmi nuux ci nitu nuuxin alayhi salaam nee na biñ faatoo ñoom nit ñu baax ñooñu awxa shaytaanu ila qawmihim nee na shaytaane ñëw maanaam iblis mi nga xam ne moom itteem mooy dajale mbooloo pour am ñu mu tàbbal sawara moom itam bu ëllëgee comme ni yonent yi góorgóorloo di tàbbal nit ñi àjjana moom itam day góorgóorlu ngir tàbbal nit ñi sawara nee na bi nga xamee ne juróomi nit ñu baax ñooñi doon jàngale lu baax doon saxal nit ñi ci tawxiit ak jaamu yàlla faatu nañ seytaane ñëw fa seenu nit ne leen ansibu ila majalisihim allati kaanu yajlisuuna ansaaban wa sammuha bi asmaihim mu ne leen da ngeen di ñëw defar ay estati natt ko ay nataal kenn ku ne ngeen defaral ko nataal bu nuroog moom tudde ko ko ah ñu daal di def nataalu wàdd def nataalub suwaa yaxuus yaxuub nasr juróomi nataal kenn ku ne ñu fekk jataay ba mu daan toog di wax lu baax ñu def foofam nataalam nu mu leen naxe mooy dana leen nataal yi li mu leen di jariñ mooy su ngeen doxee ba seeni xol wow wala ngeen di bëgg a fàttaliku yàlla su ngeen delsee xool ko fàttaliku ñu baax ñii seen xel dellu ci yàlla ah loolu mu xel nangu na ko iblis ku bon la waaye ku mën a daawa la ku bari ay pexe la li muy wax bu daaneelee da nga naan loolu yenu na maanaa waaye nag fekk lay yàq nga ca kanam maanaam projet lay yor li muy yor ni mën naa nax nit ñi ci kanam waaye fekk lam jublu du yéen sax amaana ca kanamam moo ko tax di wax yàqkat yi nag seeni projet léeg-léeg noonu lay demee fi muy tege nii ña koy jëkk a appliqué te bokk ci mbooloo mi dañ naan lii moom lu baax la ñëpp jàpp ci di góorgóorlu waaye fekk lay yà lay wane ne lu baaxut la ma nga ca kanam nee na abdullah ibnu abbas mooy nettali ba tey nee na fa faalu walam tuubad nee na ñu def lam waxoon xamuñu ne iblis la defe nañ ne ku baax ku ñëw la di leen laaye biir wala defe nañ sax malaaka mu jóge ci seen borom la ñëw laaye leen biir ñu samp seen i estati waaye nee na walam toobat nee na kenn jaamuwu ko de dañ ko faa samp rek continue di def noona lu ca tegu xatta ida halaka ulaik wa tunuusiya al ilmu ubidat nee na ba ñooñee faatoo ñooñu nga xam ne ñoom la iblis ne woon defar leen estati yi ñooñu moom bañ ko defaree ba àggal jaamu wuñ ko parce que xam nañ ne lii ñoo ko yett ñoo ko fi teg kon xam nañ ne du yàlla waaye nag nee na ñoom génération boobu biñ faatoo seen i doom ak seen i sët ñëw nee na obidat foofa lañ tàmbalee nag di jaamu bant yooyu ñu sampoon lu tax mooy dañ ne ah lii kat sun maam yi sampuñu ko fi woon lu dul jaamu ko rek moo taxoon ñu daal di tàmbali di ko jaamu ci biir loolu nag ci la borom bi tabaraka wa taala yabale nuux alayhi salaam ngir mu delloo leen nag ci njub xamal leen ne lii ngeen di jaamu duñ ay yàlla duñ lu baax kenn warta jaamu kenn ku dul yàlla nuux woote woote boo xam ne bu yàgg la ci tawxiid sax ca ba ni mu fa jógee muy woote boo xam ne mat na junni at yu manki juróom fukki at maanaam neuf cent cinquante ans woote na ko ku gudd fan la woon woote bu metti boo xam ne fu nekk jaar na fa ak ñoom su aajee sekkare mu sekkare su aajee déclaré ca kaw mu déclaré su aajee dugg génn kenn par kenn mbooloo par mbooloo xeetu woote mu nekk jëfandiku ànd ak ñoom teewul borom bi tabaraka wa taala ne wa ma amana maahu illa qalil kon ñu dëgër bopp la ñu woon ndax mbir ma dafa dëgër maanaam bokkaale ak biddaa su xase sax ci xol bi loolu dindi ko lu jafe la daanaka nit ki nekk ci kéefër sax du ab jullit tey mu dugg ci lislaam yàlla baaxee ko mu xam tawxiit ak sunna kooku moo gën a yomb jëfleenteel ci koo xam ne dafa jàpp ne lii mu jàpp moom jaamu yàlla la ngir nga mën koo dindi ci loolu lu jafe la loolu moo taxoon mbir ma mbir ma doy waar lool fa labisa fihim alfa sanatin illa xamsina aaman juróom junni at yu manqué juróom fukk ànd ak loolu ñu néew ñoo ko gëm résultat bu tuuti la am waaye nag yonent ba ak wootekat ba itteem nekkul ci ñaataa ko gëm bari nañ néew nañ na fekk rek moom jottali na li ko taxoon a jóg dëgg gëm doon leeral leeral na ko ñu dégg ko ku nangu alhamdulilah am nga tawfiq ku nangu wut boo dajeeg sa borom ñàkku lay loolu mooy itte yonent bokkaale moomu nag boo gisee mu allif bi fii mu ne wa shirku nawaani fa shirkun akbaru bihi xuluudu naari id laa yuxfaru laa yuxfaru nee na wa shirku bokkaale nawaani ñaari xaaj la fa shirkun am na ak bokkaale akbaru gu mag kon bokkaale gu mag gi ci la tàmbalee bihi nekk na ci moom bokkaale gu mag xuluudu naari sax ci sawara is ngir laa yow faru di su ko jéggale nee na bokkaale day ñaari xaaj la bokkaale gu mag nga xam ne mooy suñ wàññil sa kàddu tuuti bokkaale gu mag nga xam ne mooy taxa sax ci sawara te it bokkaale gu mag di su ko jéggale maanaam foofu daf fi wax bokkaale gravité bi mu am danger bi ci ci nit ki ndax bokkaale yim bokkalewut ak benn bakkaar mooy yii mu junj mooy ku faatu yóbbaale ko kenn mënut ci yow dara sawara rek tey duutoo génn ba faaw ki faatu faatuwaale bokkaale yàlla na ci yàlla musal kooku duutoo génn ba mukk beneen bakkaar bu mu mën a doon nit ki mën na ko faatuwaale yàlla jéggal ko wala même bu ko mbugalee sax dana ko génnewaat dugal ko àjjana ngir tawxiid ba mu yóbbaale woon waaye nag yóbbaale na bokkaale di jaamu leneen lu dul yàlla wala bu jaamoo yàlla boole koog leneen wala keneen kooku kenn taniwul ci sawara rek kooku mooy benn gravité bu mag bi nga xam ne benn féetewu ko kaw laa yughfaru mooy beneen bi mooy bi ci des moo di ku faatu yóbbaale ko dis ko jéggal bàkkaar bu mën a doon mënees na ko jéggale borom bi nee na inna allaha la yaxfiru an yushraka bih wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha nee na yàlla du jéggale ki ko bokkaale te faatuwaale ko bàkkaar beneen bu mën a doon nag borom bi tabaraka wa taala mën na la ko jéggal bu ko soobee kum ca mbugal it dana la ca génne dugal la àjjana ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax yaxruju min annaari man kaana fi qalbihi mithqaalu darratin min xardalin min iman koo xam ne lu toll ne fépp xardal mi fépp wu tuuti ci ngëm yàlla mi ngi ci xolam su faatoo su ko yàlla dugalee sawara itam dana ko génne ngir iman boobu mu yóbbaale dugale ko àjjana dugalaat ko àjjana kon gravité bu njëkk mooy ban moo di ku ko yor boo duggee sa war a duutoo génn ñaareel ba mooy borom bi tabaraka wa taala du ko jéggale ku ko faatuwaale moom sa war a rek wala yaasu billah ñetteel ba nag mooy fu mu fekk ak jaamu yàlla da koy yàq su nit ki dàqoon a julli dàqa woor gën a sonn ci def lu baax waaye bu jaamu yàlla jotee mu bokkaale ak yàlla wala mu bokkaale ak yàlla ci pas-pasam moo xam tawxid rububiyya wala tawxid asmaa wa sifaat wala bokkaale bu mu mën a doon ma ngay jëf waaye jëf yaa ngay yàqu borom bi tabaraka wa taala yonentam ya ba mu leen tuddee ba noppi tagg leen nga xam ne mooy ñi gën ci mbindeef yi daf ne zalika huda allahi yahdi bihi man yashaau loolu mooy njubug yàlla gi nga xam ne daf ci jubal ku ko soob maanaam yoon yooyu yi ñu jaar ñoom yonent yi nee na mooy njubug yàlla mooy yoonam wim xàll nga xam ne ku ci jaar mucc nga mu tekke ne walaw ashraku suñ bokkaale woon ñoom yonent yi la xabita anhum ma kaanu yaamaluun kon liñ defoon lépp day yàqu ñooñu ñooy ñi gënal yàlla ci ñim bind yonent yi ànd ak loolu nee na suñ bokkaale woon lañ defoon lépp day yàqu kon naka nag maag yow ak keneen nun taxul ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam nga xam ne moo ko gënal ci ñooñ ñépp nee na ko wa laqad uuxiya ilayka wa ila alladina min qablik wàcce naa ci yow ak ña la jiitu woon la in ashrakta la yaxbatanna amaluk soo bokkaalee sa jëf day yàqu wala takunanna min alxaasirin te da ngay perte yonent bi lay waxal ku rëy koo kii ku jub koo kii moom lay wax ne ko wàcce naa ci yow ak ña la jiitu woon ne soo bokkaalee sa jëf yàqu na te da ngay perte kon bokkaale ci boppam lu mat a daw la lu mat a wattandiku la yàlla na ci borom bi tabaraka wa taala musal jële nañ ci jaabir ibn abdullah radiallahu taala anhu ci xadis boo xam ne mi ngi ci buxaari ak muslim mu ne dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man laqiya allaha la yushriku bihi shay'an daxala aljanna wa man laqiya allaha yushriku bihi shay'an daxala annaar mu leer nañ nee na ku dajeeg yàlla maanaam ku faatu fekk bokkaale woo dara ak sa boroom moom rek mooy sa yàlla pour yow daal moo yor sa dund moo yor sa wërsëg moo lay rey moo la mënal dara kawnu bi muy aalam bi lépp lu fi am borom bi tabaraka wa taala ci amalam la tasag jaamu moom képp nga ko jagleel boole woo ci keneen pas-pas boobu ak jëf jooju ba ku ko yóbbaale nee na day dugg àjjana loolu mooy li wér daxalal jànna ji nag foofu leeral bi fi nekk mooy tafsil bi fi am mooy mbir waajoo ji yóbbaale tawxid benn mu doon koo xam ne dafa yóbbaale tawxid mucc ci bàkkaar yu mag yi wala bu ko defee it tuub na ko ñu jéggal ko kooku moom day jubale rek këram ca àjjana yàlla na yàlla boole ci ñooñu keneen ki ci des mooy koo xam ne yóbbaale na yeneen bàkkaar yu mag yoo xam ne nag tuubu ko ba faatu waaye nag yóbbaale na tawxid kooku mbiram bu neexee suñ borom tabaraka wa taala mu jéggal ko la mu defoon lépp donte tuubu ko sax daal koy dugal àjjana mu jubali këram bu ko neexee it nag mu jaaree ak moom ca naari wala yaasu billah mbugal ko fa génne ko door ko dugal àjjana ngir tawxid boobu mu yóbbaale yal na yàlla musal ci jaari fenn kon mbir mi noonu la demee tawxid gravité boobu la demee ñetti mbir yooyu mooy yi gën a rëy ci loo xam ne dafay yàqal doomu aadama te yépp boo ko seetloo ëllëgam lay yàq ndax sa jaamu yàlla yi ngay def la koy tax a yàqu loola mat naa daw lay tax nit ki mu def bàkkaar bu ñu ko dul jéggal kooku mat naa daw lay tax nit ki bu tabbee aj sawara wala yaasu billah duutu génn mukk loola mat naa daw kon ñetti ponka ngoog yoo xam ne benn bu ci ne jar na adduna ak li ci biiram nga di ko daw ngir woote ci tawxid ak fexe ba nit ñi duñ ca tàbbi loolu moo tax ñii woote ci tawxid seen liggéey lu rëy la donte loolu jaaxal na ñu bari wala ñu xeeb ko sax defe ne loolu ab daayira bu xat la boo xam ne daal ginnaaw nit ñaa ngi naan laa ilaha illallah rek am nañ tawxid jeex na kon daal ñii sànq seen temps foofu di jàngale ay ati at di jàngale tawxid daal dañuy sànq seen temps fekk mbir ma du noonu de nit ñaa ngi wax laa ilaha illallah waaye ñu ngi bokkaale itam de ñu ngi bokkaale ci wax ji ñu ngi bokkaale ci jëf ji ñu ngi bokkaale ci dund gi kon tawxid bi daa war a leer dafa war a tasaaroo ci askan wi daa war a tasaaroo ci xeet wi loolu mooy yërëm leen mooy yërëm leen bañ mën a mucc ndax su loolu amut wala yaasu billahi ak lu coow li bari bari ak bëgg gi lu baax lu mu am am mucc moom day daal di jafe mu daal di joxe benn définition nag jàngale lan mooy bokkaale gu mag mu ne wa huwa ittixaadu alabdi gayra allahi niddan bihi musawiyan mudaahi nee na wa huwa moom bokkaale gu mag ittixaadu alabdi mooy jaam ba jël gayra allahi ku dul yàlla maanaam dem jël ku dul yàlla niddan mu def ko moroom bihi ci moom wala musawiyan mu koy yemale bihi ci moom mudaahi di ko nuróoleeg moom ak ci lu mën a doon nag am na keneen daal koo xam ne ma ngi koy jox cër boo xam ne cërub suñu borom la yàppe na ko ne moroomum yàlla la léeg-léeg nga dégg ci làmm yi sax koy wax ba ne diw yàlla la faf wala yaasu billah loolu moom loolu moom mën naa mën naa mën naa tëxloo ay nopp mën naa yàqum xel doomu aadama ji ñuy wax ba mu yàgg ñu ne yàlla la kooku musiba la bokkaale nag boobu moo ci yées wutal yàlla moroom moom la ñuy tudde shirku taswiya yemale yàlla ak keneen moo tax ña ko defoon bu ëllëgee bu ñuy réccu xeeti bokkaalee boobu lañ ciy gën a réccu borom bi nee na qaalu wa hum fiha yaxtasimuun qaalu wax nañ ñoom waa sawara wa hum te boobee ñuy wax yaxtasimuuna ña ngay xuloo fiha ca biir sawara nee na waa sawaraa nga ca biir sawara wa di xuloo lu ñuy wax ñu ne tallahi in kunna la fi dalalin mubin id nusawikum bi rabbil alamin nun day nekkoon nañ ci réer goo xam ne gu màgg la ban leen di yemaleeg yàlla loolu buñ koy wax ñan la ñuy jàkkaarloon di leen ko wax ñeñ doon jaamu ñeñ joxoon cërub yàlla moo xam ñooñu ay malaaka lañ moo xam ay jinne lañ moo xam ay yonent lañ moo xam ay wàlliyu lañ moo xam xërëm yuñ defaroon la di ko jaamu waaye lu mu ci mën a doon daal bu bis boobaa seenu réccu danañ ko wax ca kaw ne nun day danoo nekkoon ci réer gu metti ban leen di yemaleeg yàlla te kenn ku nekk xam na ne yemale dara ak yàlla du ci bind gi kenn déggagul kenn koy wax ne kii dafa bind ni yàlla di bindee kon taswiya bi nekkul fil xalq wala ci wërsëg ñu ne ni yàlla di joxe wërsëg noonu la kooka di joxe wërsëg wala na muy reyee noonu la kee di reyee taswiya boobu nga xam ne moom la ñooñu defoon muy kuffaaru màkka yi jëmul woon foofu waaye ci jaamu gala ci jaamu gala dañoo jàppoon ne seen xërëm yooyu ñuy jaamu suñ ko jaamoo danañ ci mën a amee ngërëmul yàlla dañoo jël moyen boo xam ne yàlla defu ko moyen moo tax ñu ne maa naabuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa dañ leen di jaamu rek ngir ñu mën noo àggale ci yàlla kooku mooy musiba bi moyen la boo xam ne yàlla joxewu ko jaamu keneen ku dul yàlla kooku mënta nekk moyen bu baax kon ñooñu gëmoon nañ ñoom yéefari màkka yooyu gëmoon nañ ne yàlla mooy war sa gële kon yemalewuñ ko kenn foofu mooy dundal yemalewuñ ko foofu kenn mooy rey yemalewuñ ko foofu kenn mooy wàcce taw bi moo bind asamaan ak suuf yemalewuñ ko foofu kenn waaye nag ci jaamu yàlla ga foofa lañ ko wutale moroom def seeni xërëm wutal ko bis boo xam ne bu jotee ñoom ñëpp ñu taxaw kuy rendi sa yëf ñëw rendi ku koy jox sa la nga koy jox ñëw jox ko ñoom ñëpp ñu ànd di jaamu kon foofee la jaamu ga nekk mu teg ca ne mi ngi leeral ba tey nee na kon bokkaale gu mag mooy jaam bi ñëw fekk ku dul yàlla mu di ko yemale ak borom bi tabaraka wa taala di ko nuróoleeg moom mudaahi mooy di ko nuróole ak moom yaqsiduhu wala yaqsuduhu inda nuzuli durri li jalbi xayrin aw li dafci charri nee na yaqsiduhu mu di ko jublu moom kookee dul yàlla inda nuzuli durri saa bu lor wàccee ci moom rek mu jubali kooka xolam ca kooka lay jëkk a dem mu jàpp ne moo koy faj moo mën a yëkkatee dor lor ci moom li jal bi xëyrin ngir xëcc aw yiw aw li dafa charri wala jañ aw ay ñaar yooyu mu tudd muy xëcc yiw ak jañ ay dundu doomu aadama ak ay yëngatoom ci kaw suuf yaar yooyu koy tax di yëngatu yëngu boo yëngu rek benn ngir xëcc yiw mu ñëw la wala jañ ay mu dem seetlu ko ca ba nga xëyee ba ngoon ba nga xëyee ba ngoon yëngatu boo fi yëngatu rek yaar yooyu ñoo tax jamono yoo xamee ne nag nit ki xolam dafa aju ci jeneen doomu aadama wala meneen mbindeefum yàlla moo xam ne daa defe ne xëcc yiw mu ñëw jañ lor mu dem ca mbindeef moomee rek la ko mën a amee ca moom la ko mën a jaare wala mën na ko jaare ci moom sax su boobaa ma ngi koy bokkaale ak sun borom tabaraka wa taala bokkaale gu mag moo tax mu ne yaqsiduhu inda nuzuli durri li jarbi xayrin aw li dafci charri aw inda ayi garadin laa yaqdiru alayhi illa almaliku almuqtadiru aw li inda ayi garadin wala aajo bu mën a doon laa yaqdiru aajo boo xam ne mënu koo faj illa almaliku almuqtadiru laa yaqdiru alayhi mooy mënu koo faj illa almaliku almuqtadiru aajo boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala képp moo ko mën a faj nga wékk ko mbindeef ne na ma ko fajal soo ko defee booba yaa ngay bokkaale nee na loolu mooy bokkaale gu mag am nga sa aajo yoo xam ne ju la ñor la yoo xam ne jàpp nga ne daal ci sëg dund moom lii soo ko amoon day mel ni sa dunduk àdduna moom lépp maase na texe na nga daal di jàpp sa ñaari rakka sa sa sa sa njàpp mu sell julli sa ñaari rakka wéet fi sa boro bérëb tàllal sa borom say loxo ñaan ko loolee loolu ndax bokkaale la wala tawxiid aajo ju mel noonu gaar na la nga xëy war saw fas wala nga taal sa oto bokk sa walis yor sa yóbbal foo jëm nga ne ca xabru ba parce que maa yéene dem ca xabru diw ndax foofa la ñuy faje aajo ya jubali foofa dem loolu mooy lan looluy bokkaale wala bépp béréb boo xam ne da nga koo tudde béréb bu laab boo xam ne nit ka day takki bagaasam war waruwaayam di dem di fa faji aajo moo xam xabru la wala nit ñaa ko fa samp wala ak garab la wala bant buñ teral la wala tur wuñ ko mën a jox su boobaa atte bi benn la ba mu des ñetti jàkka yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki mën naa takk bagaasam jëm fa te ba mu fay jëmit lu ko fa yóbbu ah jàkka jàkka la jëm lu ko fa yóbbu julli jàkka luñ koy doye julli ak ñaan jàng alxuraan tudd yàlla déglu xam-xam loolu la ñu doyee jàkk ne ñetti jàkka yi muy almasjidul haram bi nga xam ne ku fa julli genn julli am nga yoolub ñaata téeméeri junni al masjidul haram boo ko jullee genn julli am nga yoolub téeméeri junni julli téeméeri junni mooy ñaata cinq cent mille mooy juróomi téeméeri junni yaa Omar cinq cent mille mooy juróomi téeméeri junni cent mille mooy téeméeri junni am nga cent mille yoolub ku julli cent mille prière téeméeri junni julli jàkkay Madina muy jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam al masjidu nabawi ca Madina boo fa jullee genn julli am nga yoolub junni julli junni mooy ñaata mille am nga yoolub mille ci ay julli muy muy junni al masjidul aqsa ca baytul maqdis ca quds boo fa jullee genn julli am nga yoolub juróomi téeméeri julli muy ñaata cinq cent ci ay julli kon ñetti béréb yooyu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la tushaddu rihaalu illa ila thalathati masajid ba mu tuddee jàkka rek xam nañ ne kon foofu lañ fay wuti mooy waxuñu ne nga dem fa daal di toog bu dee masjidul xaraam tawaafa la fa yóbbu julli ñaan jàng alquran bu fa xam-xam nekkee nga déglu boroom xam-xam ya yiw woowu yépp a nga fa bu dee almasjid nabawi la la fa yóbbu mooy julli ci jàkka ja ñaan fa jàng fa alquran déglu fa xam-xam nuyu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam yam yam bokkal nekk fa muy abubakar ak omar assalaamu ala rasul sallallahu alayhi wa sallam loola ca la waaye nag loola yëkkatiw la ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam ba muy wax loola moom nekkagul foofa nekkagul ab xabru nekkagul foofee ca wetu jàkka ja kon jàkka ja moom mooy maqsid bi waaye nag rafet na ci jullit bi nga xam ne dem na ba foofa ngir julli ji fa jàkka ja ak ñaane fa nag mu bañ faa jóge lu dul dafa nuyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donte al imam malik dafa daan sib sax lu mel noonu moom da daan wax ne bu ko jàkka ji taxee jóg ni jóg julli ci jàkka ji def la muy def rek te mu yoonam waaye nag loolu jullit yu bari itam nag seen xol attanu ko dem ba Madina nag julli fa jàkka ja dañuy def ni ko yenn ci saxaaba yi daan defee Abdullah ibn Umar ibn Xataab bu masaan jógee ci tukki balaa dugg këram day ñëw fa jàkka ji julli ñaari rakka jaar fa qabru ba assalaamu alayka ya rasulallah assalaamu alayka ya aba bakrin assalaamu alayka ya abati daal di dellu ca kër ga toog nuyu yonente ba ak ñaar ñooñi kon loola lu baax la waaye nga xam ne loola taxulaa jóg loola taxulaa jóg waaye da nga ko caa boole ba nga demee ba foofa la loolu judd almasjidul aqsa itam nekk noonu mooy béréb bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy gàddaay foofa la ba muy rañaan foofu la borom bi jaar ak moom door koo yëkkati mu dem ca asamaan ya kon béréb bu tedd la waaye lu du loolu nag beneen béréb boo xam ne yuqsadu li zaatihi nga xam ne dañuy jëm ci place boobu pour ne place bii mooy place bii boobu jullit yi amaatuñ ko beneen place boo jublu bu nekk fas yéene ne damaa takk samay bagage weesu fi place yi mu nuroon yépp ngir dem ca booba dong ngir pajuk aajo fa la nekk moo xam ab xabru la moo xam leneen lu mu mën a doon loola daf lay dugal ci bokkaale benn mu nekk bokkaale moom ci boppam wala mu nekk zaria muy lu lay xëcc di la jëmi ci bokkaale su ko defee bu boobaa jullit bi daf koy daw firaarahu min al asad foofu nag lu mat a bàyyi xel la nee na ma jaalihi li dalika almaduwi aw almuazami aw almarjuwi fi algayb sultaanan bihi yattaliu ala damiri man ilayhi yafzau daf lay dafa bëgg nga xàmmee ki nga xam ne dafa jël àq yàlla jox ko mbindeef ak ki nga xam ne xam na àq yàlla mu jox ko ko bokkaale gu mag gi ci définition bi ci la nekk ba léegi moom lay xamle dafa jëkk ne mooy jaam bi dem jël ku fekk ku dul yàlla mu jàpp ko def ko moroomum yàlla nuróole ko ak moom saa bu lor wàccee ci moom mu daal di koy jublu ngir xëcc njariñ ak jañ lor wala sax aajo bu ko gaar bu mën a doon boo xam ne yàlla rekk ko mën a faj mu daa di dem jox ko kookee muy ñaan maanaam wéet fi bérébam sax léeg la nga gis koo xam ne day wéet fi bérëb di ñaan yemul ci ñaan yàlla rek waaye mën naa dem sax ba ñaan keneen te du ko yëg ndax jamono ya muy ñaan di wax ne yow sama borom yàlla na nga ma defal ci barkeb diw boo wëtuwul xol ba mën naa aju ca keneen ka dul yàlla ba tax diggante boobu lu mu gàtt gàtt mën naa fàtte yàlla ci diggante bi kon mën na faa ñaan keneen ku dul yàlla te du ko yëg donte loolu boroom xam-xam yi bokk boolewuñ ko ci bokkaale bu mag gi ne bi jaahi nangam wala ci barkeb nangam fekk da ngay ñaan dugal ko ci kooku tawassul gayru mashru' la tawassul la boo xam ne santaane wuñ ko waaye nag ñu ragal ko ndax mën naa dem ba yóbbaale nit ki ci ci bokkaale te du ko yëg ndax jamono yoo xam ne mi ngi ñaan yàlla tàllal ko ay loxoom wéet ak moom di ko wax ne lii nga may may jaarale ko ci barkeb diw wala ci darajay diw saa boo xamee ne dem na ba mu aju ci xolam ne ci loolu rek la ko mën a amee su waxut loolu du ca jot kon bokkaale dikk na jullit bi fu mu tàllalee loo xam ne yaa allah rek li ci des lépp war naa far lépp day effacé wu ci kanamam loolu la jullit bi ni mel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fañ koy tudde xolam di aju ci moom mooy qudwa saa boo déggee ashhadu anna muhammadan rasulullah moo xam ci nodd la wala ci liqaam wala ku ko tudd noonu sa xol wal naa dellu ci ne royukaay baa ngoo koo roy keneen ku dul kooku rek sa roy du baax kon kenn ku ne dafa am àqam joo xam ne dañ ko koy jox mu doon ak maandute maandu mooy i'taa'u kulli di xaqin xaqahu kenn ku ne lam yeyoo nga jox ko ko waaye boo jëlee yon li yonent bi moom jox yàlla jël la yàlla moomoon jox yonent bi kooku adduna tukki na ñeneen ñi ca des nag taxuñu ñuy wax moom nee na maa jaalihi li dalika al maduwi nee na ànd ak loolu mu defal kookee muy woo awil muazzami wala kookee mu màggal awil marjuwi wala kookee mu yaakaar tadul tadu yàlla mu defal ko lan sultaanan mu defal ko nag man-man kàttan pouvoir fil ghaybi ci lu nëbbu man-man boo xam ne bihi ci moom yattaliu lay xamee ala damiri man ci xolub ka nga xam ne yafzau dana tiit ilayhi jëm si ci moom ki nga xam ne bi mu tiitee jëm si ci moom nga jàpp ne diw sàngam fa mu nekk ginnaaw moom laa xettalikoo moom laa jàpp ne moo ma mën a musal ci jafe-jafe bii ma nekk fa mu nekk moo xam day dund nekk fu sori wala dañ koo denc ci bàmmeelam ba muy neloo ca bàmmeelam yàlla xam lu mu fa nekke nga jàpp ne kooka am na benn secret bu ne ci moom boo xam ne foo ko tuddee am na lu lay xettali loolu soo ko defee jël nga la yàlla moomoon jox ko keneen ku dul yàlla bokkaale daal di ñëw moo tax mu ne sultaan boobu yi nga xam ne moom lay defal kooka fil ghaib mooy ne kooka soo ko woo su fa nekkul woon it day mel ne dafa teew wallahi boo jàngee lenn ci ci téere yi nga xam ne bind nañ ko tey muy tasaaroo ay nit bind ko ñi di ci tooñ tooñ wàllu yu yàlla yi di leen ci waxal yoo xam ne waxuñu ko di di leen ko askane da nga gis al ajabul ujab nettali yoo xam ne luñ mën a wax la ca gën a néew mooy day yàq bopp di yàq pas-pas di yàq diine am na koo xam ne dalay wax ne dañoo ñëw ne ko di ko tàggee ab taalubeem mi ngi ñu bind de ciy téere mu ne kan ñu ne ko diw mu ne déedéet kooku faatuwul ah lu tax nun kat denc nan ko sax ba noppi nee na mu ne déedéet faatuwul de ndax sama borom tàggoo guma ci ak faatoo waliyaasu billah léegi ah lu nuy def nag noonu de denc nañ ko ba noppi nee na mu ne nañ dem jóg ba ca armeel ya ñëw fëgg ni ko qum bi izni jógal ci sama kàttan nee na waaja ne ñokket jóg ànd ak noonu di dellu ne bi ñëwee ba ci yoon wi ñu ne ko waaw yaa mawlaana yow sëñ bi lu tax néew ko jógal ci kàttanu yàlla xanaa da nga ne ko jógal ci sama kàttan mu ne su ma nekk woon jógal ci kàttanu yàlla kon néew ya fa nekk yëppay jóg waaye ginnaaw kii moo ma tax a jóg ma tax xoola yooyu bu jaxasoo ci bopp ki koy jàng di xëy di ko gis di dugg di génn di gis yu mel noonu kese bu yàggee fan la tawxiidam di nekk fan lay déggee lu ñuy wax tawxiid zéro day dem ba nekk zéro wala sax ci ci suufu zéro moins dem ba ay moyen dix moyen vingt moyen lu sore sori sax digganteem ak tawxid kon yooyu ay mbir la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la dafa fees dell nag ci téere yi téere yi nga xam ne boo leen tuddee ñenn ñi yuux wala ñuy défendre di di soow looloo fa fees dell nag yàlla ñu yàlla musal ñi ñuy jaamu nag ñooñu dañ leen a tooñ ñu ci bari bokk ndax ñi nga xam ne nit ñi dañ leen di jaamu fekk ak yàlla ñu jox leen ko ñooñu ñaari xaaj lañ am na ci ñoo xam ne dañoo am xel am ci ñu amul xel ñi am xel ñi am xel ñooñu ñaari xaaj lañ waaw moom day portable yi day ñaare moom bari na lu ñu yàq ñi am xel te doomu aadama yi di leen jaamu ñaari xaaj la am na ci ñoo xam ne jaamu gi daf leen a neex maanaam dañ leen di jaamu ñu bég ca amaana sax dañ koy santaane ku mel ne firawna ku mel ne iblis ñooñu la ñuy tudde taaxut nga xam ne dañuy woote sax ñoom ci ñu jaamu leen ñooñu nag seenu àtte ëllëg mooy lan mooy ñoom ñañ doon jaamu ak ña leen doon jaamu ñooñ ñépp ña nga sawara jaamu ña nangu ko ñoo ña leen doon jaamu ña nga sawara kon nag bépp doomu aadama boo gis doomu aadama di ko defal lenn loo xam ne wóor na ko ni lii àq yàlla la ba noppi mu nangu ko xamal ne tàbbi na foofa mooy dugg ci waxi sunu borom tabaraka wa taala id tabarra alladina tubiu min alladina tabaau maanaam yowma alqiyaama nee na bu bis boobaa kenn ku ne da ngay jéem a set ci sa moroom id tabarra alladina tubiu ñañ toppoon nga xam ne ñoo doon jiit ya nee na dañuy set wecc ci yow boo la séenee ne la xawma la kii ku mu nga ne xanaa doon li ma daan am lépp yow laa ko daan joxe la mu ne la xawma la id tabarra alladina tabara alladina tubiu min alladina tabaau ñañ toppoon dañuy set wecc ca ña leen toppoon ña leen xawma leen wa raawu alazaba ñu gis mbugal na wa taqataat bihim al asbaab buum ya doxoon seen diggante buumi kollëre yaag buumi nangami yooyu yëpp dafay dog wa taqataat bihim al asbaab wa qaala alladina tabaau ña leen toppoon nga xam ne ñoo daan ñoo daan jëfee lañ leen daan digal ñu ne law anna lana karratan fa natabarra minkum kama tabarratum minna ñu ne su ñu ne ko su fekkoon ne delluwaat nan àdduna de kon danañ leen fay seen bor bii maanaam nii ngeen seete nun si nun wecc nenu xawma leen sun delluwaatoon àdduna yan doon def di leen ko jox mu neex lool bu boobaa dañ leen di wax ne nun xamunu leen fa natabarra minkum kama tabarau minna waaw borom bi nee na kadalika yurihim allahu amalahum xasanatin alayhim wa ma hum bi xaarijina min annaar nee na noonu la leen borom bi tabaraka wa taala di wone lañ doon def muy ña doon jaamu ku dul yàlla ak ñañ doon jaamu ñu d'accord ca ñu won leen yéen ñëpp perte ngeen nee na wa ma hum bi xaarijina min annaar nee na dañuy dugg sawara te duñ ko génn moom ñañ doon jaamu ak ñi leen doon jaamu ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne dañ leen a jaamu te bëgguñu loolu di ko tere ku dégg bëccëg ñi taxaw ne lii àq yàlla la bu leen jëm ci nun bu leen def noonu ku mel ne isa alayhi salaam yonent yi ak nit ñu baax ñi ku def ku leen jox àq yàlla dañuy bañ isa alayhi salaam kooku ak lu mel ne moom ku mel ne Usayr ay nit ñu baax lañ ñooñu ñàkkut ñu leen jaamu waaye nag ñoom loolu dañ ko doon tere ñooñu luy résultat bu bu ëllëgee ñooña ña leen doon jaamu ñooy perte waaye ñañ doon jaamu dañuy mucc ndax dégagé woon nañ seen responsabilité kooku mooy xaaj bi nga xam ne mooy ñu xelluñu ña ca des mooy ña xelluwut nag doon ay bant ak yeneen ñooñu moom ci isa sax bala ñu fay génn xam nga borom bi tabaraka wa taala nettali na lu aju ci mbiram am na fu mu ne إذ قال الله yaa isa ibnu mariam borom bi tabaraka wa taala ba mu waxee yaa isa ibnu mariam ne ko yow isa ibnu mariam a anta qulta linnaasi ittaxiduuni wa ummiya ilahin min dunillah ndax ñii yaa leen waxoon ne man ngeen jël ma maag sama mariam sama yaay mariam nu nekk ay yàlla ndax yaa ko santaane woon lu mu wax lu ca isa teg alayhi salaam qaala subhanaka yéem naa sag sell maa yakunu lii an aqula maa laysa lii bi xaq loolu sañu bu koo wax ndax du sama àq malaayika yi ña leen doon jaamu nee na wa yawma yaxshuruhum jamian bis ba nga xamee ne ñoom ñëpp yàlla da leen di génne ñu teew summa yaqulu lil malaayika haulaai iyakum kaanu yacbuduun gaa yi teew ni yéen lañ doon jaamu qaalu subhaanaka tontu bi benn bee de yéem naa sag sell anta waliyuna min dunihim bal kaanu yacbuduuna aljinna aktharuhum bihim muminuun yéem naa sag sell ñii kay jinne yaak seytaane yi lañ doon jaamu waaye noonu jaamu ñun woon kon ñu baax ñooñu ñoom mucc nañ ci lool ñooñu ñépp boo leen boole nee na wa yawma yaxshuruhum wa maa yacbuduuna min dunillah bis ba nga xamee ne dana leen génne ñoom ñépp teewal ña ca des yonent yaag malaayika ak ñañ doon jaam ñépp te duñ yàlla fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallu sabil ndax yéen yéen a réeral sama jaam ñi wala ñoom ñoo jàddal seen bopp yoon wa qaalu subhanak kon tontu li ba tey leen lee maa kaana yanbagi lana yellut ci nun an nattaxida min dunika min awliya maanaam sañu noo jël kenn muy doon suñ kilifa wala suñ buur suñ yàlla ku dul yow suñ borom tabaraka wa taala kon loolu mooy melokaanu ñu baax ña nga xam ne dañ leen a jaamu bëgguñu jaamu ga te bu ëllëgee dañuy mucc ñi leen doon jaamu rek ñoom ñooy alko bant yaag garab yaag béjjéen yaag yëf yi nga xam ne nit ñaa ngi koy jaamu te du yàlla defe ne seenu mucc ca la nekk wala jañ lor jañ lor ak ñoddi njariñ ca la nekk yooyu moom bu ëllëgee borom bi tabaraka wa taala nee na innakum wa ma taabuduna min min dunillahi xasabu jahannama antum laha waridun nee na yéen ak bant yi ngeen doon jaamu bu ëllëgee yéenay mattum jahannama antum laha waridun yàlla yàlla musal ci loolu kon loolu mooy bokkaale gu mag mu ne nag wasaani shirkun asgarun wa huwa riyaa fassarahu bihi xitaamu al anbiya wasaani nee na xeetu ñaareel ba shirkun asgaru moo doon cosaan li ndax afaalu tafdil li ñu tudde mamnuu min as-sarf lay doon maanaam wareesu ko tanwin waaye nag xam nga ne ci shi'r ci way su bayit wa naree damm am na lu ñuy tudde daruraatu shi'r daruraatu shi'r bokk na ci tanwiinu maa laa yunawwan fekk loo xam ne kenn waru koon a sañ a wutal ñaari masque nga wutal ko moo tax fii boo koy jàng te bëgg njàng ma wér da ngay wax ne wasaani shirkun asgarun wa huwa riyaa fassarahu bihi xitaamu al anbiya comme ni nga xamee ne anbiya it ni mu ko waxe foofu mam alif mamduuda la mu soppi ko xasru ko xasaf anbiya u wala anbiya i je looloo tam ci daruraatu shi'r ci la bokk mooy xasrul mamduud nee na wasaani kon ñaareel ba shirkun mooy bokkaale asxaru gu ndaw buñ ko tuddee gu ndaw nag bu mu tax nga defe ne daa ñàkk solo maanaam buñ ko comparé gu mag gi foofu lañ ko tuddee gu ndaw waaye su beroo kat moom it musiba la ndax moo gën a rëy bàkkaar yu mag yépp yi nga gis ay naan sàngara njaalo yooyu yépp bokkaale gu mag a leen yées ndax fa muy dóor bokkaale gu ndaw moo leen yées ndax fa muy dóor ci buntu pas-pas la bokkut ak yeneen yi nga xam ne ay mooy yàlla yu tegu ci ay cër la kon ndaw googu buñ ko ko tuddee lu tax mooy suñ ko comparé ak bokkaale gu mag gi foofu lay doone gu ndaw waaye ndawul de mu ne waxuwa moom arriya mooy ngistal fassarahu firi na ko bihi ci moom xitaabul anbiya ki mottali yonent yi kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko firee ngistal maanaam ngistal daal ci lay dugg ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xam ne xadis bu wér la charte muslim sax la yor imaam ahmad génne ko ak ibnu xibaan ak albaxawi charxu sunna yonente bi ne inna axwafa ma axaafu aleykum ashirkul asgar li ma gën a ragal ci yéen mooy bokkaale gu ndaw qaalu ya rasulallah wa ma shirkul asgar ñu ne ko yow yonent yàlla bi lan mooy bokkaale gu ndaw qaala riya mu ne mooy njistal kon njistal mooy ndey bokkaale gu ndaw am na rek yeneen yoo xam ne ay bokkaale yu ndaw lañ koy tuddee ñu fekk si njistal moom waaye njistal moom mooy li nga xam ne moom la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee njistal nag dafa doon lu garaaw moom maanaam dafa dafa baaxut la ci jiitu ci li tax mu garaaw am danger moom itam mooy soobatu taxallus minu lu jafe mucc la nit ki mën ci mucc ba yàlla kese kese kese tax muy def amut soxla ci leneen lu jafe la nit ki munta xam fu mu toll ci buntum njistal lu dul su nattoo boppam defal boppam benn examen boo xam ne day seetlu ay jaamu yàllaam yi nit ñi fekke ak jaamu yàllaam yi kenn fekkewut lu ci gën a sell su gisee ne yi nit ñi fekke ñooy gën a sell bu dee ay rakkaam mooy gën a amuk dal mooy gën a rafet su weetee ci néegam julli lu wuuteeg loola sooy ba mu am njàqare ci ne feebaru njistal mi ngi ci moom ñaareelu danger bi nga xam ne moom la njistal am mooy jege gim jege ak naafiq njistal ak naafiq dañoo jege lool ndax wax dëgg yàlla ki nga xam ne yàllaa ko tax di def su fekkee ne wéet na su wéetul lépp benn la war a doon waaye su nekkee ci kanam nit ñi dafa def ba mu rafet su wéetee moom dong cap-capal mu jàll kooku moom naafiq nuroo nañ de moo tax borom bi tabaraka wa taala ci alxuraan sax daf leen di nuróoleel daf leen di dendale léeg-léeg comme ni mu dal kalladi yunfiqu maalahu ria annaasi wala yuminu billahi wal yawmil axir xam nga kooku ki gëmut yàlla gëmut àllaaxira ba noppi di ngistal kooku mooy naafiq waxaat ne walladina yunfiquuna amwaalahum ria annaasi wala yuminuuna billahi wala bil yawmil axir waxaat ne inna almunafiqina yuxaadicuuna allaha wa huwa xaadicuhum wa ida qaamu ila alsalaati qaamu kusaala yuraauna annaas kon ñooñu ay naafiq lañ munaafiqoon yi la ne ñooñu dañuy jéem ngor yàlla waaye seen bopp la ñuy wor mu ne suñ jógee jëm ci julli sax dañuy jóg tàyyeel dañuy ngistal kon ngistal ak naafiq dañoo xaw a jege kon kooku ci danger bi mu yor ci la bokk ñu xam ne nag ngistal ngir ñu mën koo leeral jubluwaayi nit ñi dafa am ñetti xaaj ki nga xam ne dafa jóg yàlla kese kese moo tax mu jóg defu jaamu yàlla li muy def moo xam lu tuuti la wala lu bari waaye yàlla kese tax faalewu ci keneen def na ko nam ko bëggee it ba mu jeex mu dem yoonam kooku mooy que que mucc ci gistal xeet yooyu yëpp moom mucc na ci googu bokkaale ka ca des mooy ki nga xam ne li ko tax di def du yàlla waaye mooy nit ñi bëgg na tagg bëgg na daraja fa ñoom bëgg na nangam loolu mooy tax mu def waaye fu mu ko wari ne amatu ca loolu day bàyyi lam doon def kooku moom mooy naafiq kooku nag moom ak njistalam day àgg ci ak naafiq mooy ga bon nag mooy ñi nga xam ne man kaana yuridu al aajila taajjalna lahu fiha ma nashaau liman nurid ki nga xam ne dafa bëgg ak payam fii ci àdduna ay borom bi nee na mën nañ ko fay fii ci àdduna summa jaalna lahu jahannama yaslaha loolu la ca teg bu ëllëgee ñi defal ko jahannama mu jaaroo ko yàlla na yàlla musal ci loolu njaar madmuman madxuura mu nekk fa ci biir toroxte waliyaasu billah wa man araada al axirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaa'ika kaana sa'yuhum mashkuura koo xam ne àllaaxira kese ko tax di def yàlla dong lay defale kooku nee na ak payam ëllëg mooy àjjana kon ki jóg yàlla kese tax koo jëf jóg moo ko tax a jóg moo ko tax a yëngu mu jaarale ko ci ni ko yàlla bëggee mu jàll kooku mucc na ki nga xam ne nag àdduna kese ko tax a jóg wala taggu nit ñi wala yu nuroog yooya kooku alku na ki leen ñetteel nag mooy ki nga xam ne dafa jógoon ngir def ngir yàlla dem ba ca biir nag leneen tàbbisi ci maanaam di jaamu yàlla ba mu yàgg mu yëg ni jaamu yàllaam gi xëy na mi ngi koy rafetal ngir bëgg cee amaale aw tagg kooka nag la ñuy tudde moom ngistal kooka maqsid boobu foofu la ngistal di tàbbisee su demee nag ba nopp ba nga xam ne mujj na nag jublu gëm ci jublu nit ñi moo ëpp doole jublu gëm ci jublu ngërëmul boromam su boobaa alkane ngay ñëw waaye nag su fekkee ne yasiiru riyaa la maanaam qalilu riyaa bëgg na daal ku koy tagg bëgg na daal ku koy kii waaye nag teewut moom yàllaa ko tax di def kon kooku danañ ne am na tuuti ay gàkk yu nekk ci jëfam waaye du tey jëfam ba tey mi ngi baax su góorgóorloo rek mën naa fexe ba loolu soppiku ba borom bi tabaraka wa taala kese tax ko tax ko di jëf mu teg ca mu ne wa minhu iqsaamun bi gayri albaari kama ata fi muxkami al axbaari nee na wa minhu bokk na ci njistal itam maanaam bokk na ci bokkaale gu ndaw iqsaamun bi gayri albaari mooy giñ ci kudul yàlla waat ci kudul yàlla loolu nee na ci bokkaale gu ndaw la bokk loolu nee na ñëw na ci xabaar yu leer xabaar yooyu mooy xadis bi abdullah ibn amr ibn al ibn omar ibn alxataab nettali nee na baayam benn bis omar ibn alxataab radiallahu taala anhu dafa mas a di dox ànd ak nit ñuy tukki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dékku muy waat ci baayam wa abi moom omar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk mu ne ala inna allaha yanhaakum yàllaa ngi leen di tere an taxlifu bi abaikum yàlla tere na leen ngeen waat ci seeni baay man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut loolu yonent bi alayhi salatu wasalaam wax kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi xadis bi ngi ci buxaari muslim omar ibn xataab nee na fa wallahi ma xalaftu bacdaha منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك لا ذاكرا ولا آثرا نينا بما ديغي يونس عليه الصلاه والسلام تركو نينا غينيتوما سي يالا ما غينيتوما سي كودول يالا غين لو خامne في من لا جوغي ولا ما كوي نيتلي صاح نان كينين غين ني سي كودول يالا بوبو بونت موم داما كو دان يوب لا ذاكرا جاغي ماكو واخ مان سما بوب wala aasiran du jàngale maa koy toxal jële ko ci keneen ku ko doon def sax du ma mën a wax ne diw sangam génn ko ci kudul yàlla damay génn ci boobu bunt rek jeexal ca tàkk ub ko noonu lañ daan def bu yonente bi alayhi salatu wasalaam masaan tere dara bàyyi ko rek la ñuy def kon kooku itam ci bokkaale yi la moom bokkaale gu ndaw ci la bokk nekk noonu bokk na ci nga ne bu soobee yàlla ak diw ma sha allahu wa shita xadisu abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma daf ne daa am waa ji ñëw fi yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ak moom ba àggal ne ko ma sha allahu wa shita bu soobee yàlla soob la yow yonente bi bi mu waxee loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko ajaaltani lillahi niddan ndax da nga maa def moroomum yàlla bal ma sha allahu waxdahu ne ko bu soobee yàlla moom dong waxal loolu xadis boobu xadis bu wér la ci xadisu xudayfa riwaaya bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam daf ne kenn ci yéen bu mu ne ma sha allahu wa shita waaye mën naa wax ne ma sha allahu summa shita maanaam mën naa jëfandikoo summa waaye bu mu jëfandikoo waaw maanaam li leen wutale mooy boo nee macha allahu wa shi te mooy bu soobee yàlla soob la kooku day mel ni ñaari coobar yi ñëw ànd lay xew door a xew waaye nag boo nee bu soobee yàlla ba noppi gannaaw ba mu soob la kon sa coobare daa ñëw toftalu ci coobare yàlla te loola dara nekku ci moo tax wa ma tashaauna illa an yasha allahu rabbul alamin kon lu leen di soob seen coobare day ñëw topp ci kaw coobare yàlla waaye seen coobare kese amul njariñ di su ko lënkale it ak coobare yi borom bi tabaraka wa taala la gën nag mooy nga bañ faa tudd sax faf leneen insha allah mu jeex bu ca boole keneen bul ne wa shita bul ne leneen kon ñu xam ne bokkaale gu ndaw googu dañ koo tudde gu ndaw waaye gu réy la waaye nag buñ ko comparé ak bokkaale gu mag nag gi nga xam ne day génne nit ki ci lislaam moom loolu moo tax ñu tudde ko gu ndaw waaye borom xam-xam yi li ëpp ci ñoom nee nañ bokkaale gu ndaw googu yi kim not ci moom su ko faatuwaalee atte bokkaale gu mag lay yor mooy xulóot fi naar mën na ko indi kon kooku tuuteetul su fekkee ne atte boobu la yor nga xam ne moo gën a kawe moo gën a kawe bokkaa bàkkaar yëpp bàkkaar yu mag yëpp moo leen gën a kawe donte àggul ci bàkkaar bu mag itam ndax génnewul nit ki ci lislaam du tax ñu tas ay jabaram du tax ñu def ko lii du tax ñu def ko lii attey adduna yi lu bari ci borom xam-xam yi nee nañ borom bi lim ne inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha yàlla du jéggale ñuy bokkaale ci moom li fekk tuubuñu ko nee nañ atte boobu ginnaaw bokkaale la wax te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xeetu bokkaale bi tudde na ko bokkaale yajibu maanaam war na ñu bàyyi atte bi noonu maanaam gëm ne bokkaale bokk gu ndaw gii ñu tudde gu ndaw bokk na ci yi nga xam ne su ko nit ki tuubul ba faatuwaale ko mën na ko yóbbu sa wara mën na ko faa saxal itam loolu yaasu bilaa kon kooku des koo war a daw nit ñi daw loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax xaabi ne leen loolu laa gën a ragal ci yéen loolu laa gën a ragal ci yéen ndax xam na ne mucc nañ moom ci bokkaale gu mag ndax dafa feeñ dafa fis waaye li tax ñu ragal bokkaale gu ndaw gi mooy nit ko daf ci gaaw a dugg te du ko yëg kon moom nit ki bu fexee ba mucc ci bokkaale gu mag mu jéem a góorgóorlu ba mucc ci gu ndaw kon bunt bi lii moo tax mu allif bi indi ko muy xamal nit ñi mbir yi nga xam ne war nañ koo mën a wattandiku sàmmee ko seen wér-gi-yaramuk tawxid fexe ba seen tawxid mucc ci bokkaale loolu moo tax mu jàngal leen tey bokkaale dana ko gën a détaillé sax nag dugg nag ci biir société beeg nit ñi yi ñuy def te nga xam ne day yàq seen pas-pas mu jël ko benn par benn loolu dana ko tàmbali ci bind bi ñëw insha allah su ko defee bu agsee ñu ànd ci ak moom su fekkee borom bi tabaraka wa taala yóbbu nañu ci garde bu pare kon ñu tàmbalee ci insha allah laaj yi fi agsi woon ci bi weesu te nekk ay kayit su noppee su desee ñu déglu kayit yi nekk ci Omar insha allah kii def ne am na waaw nañ mujj boobu kii def ne ndax ku bàyyi ñetti juma ñetti ajjuma yu tegaloo ndax day day doon ab yéefar ala kulli xaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tëkku na ki nga xam ne day bàyyi julli ajjuma te tey ko amul ngant mu ne ku bàyyi ñetti ajjuma yu toftaloo te amoo ngant yàlla dana tàmpe sab xol tàmpe xol boobu nag firiwul ne day daal di doon ab yéefar ok mën naa doon ab jullit di jullit di woor ànd ci jullit yi waaye laab ga war a ne ci xolam ak sell ga ca war a nekk dellu gi ci sun boroom tuub ga bàkkaar ya am daraja yu kawe yi nit ñi am kooku da koy jafe li feeg nag tuubut loolu del siwaat siraatul mustaqim ji ma góorgóor waaye firiwul nag ne day daal di nekk ab ab yéefar laaj ba mu ca teg dafa ne atteb koo xam ne day julli ci gannaaw koo xam ne day takk ay téere ala kulli xaal loolu moom dana ñëw ginnaaw bind la boo xam ne day ñëw mu aju ci li ñu tudde tamaim kooku mën nañ koo teelu ba mu ñëw ndax ay détails moo ci am yoo xam ne dañuy ragal mu jël waxtu bi xadis bi nga xam ne nee na lenn ci saxaaba yu jigéen yi dañ doon jëfandikoo ay doj di compter seen zikkër ñu di ko compter ci ay ay xeer ndax xadis boobu xadis bu wér la wala déet mu ne su fekkee wér naag wérut it ndax kurus daal mën nañ koo jëfandikoo wala mën nañ si koo jëfandikoo xam naa loolu la bëgg a wax ala kulli xaal ñu xamal ko ne ko xadis bi rot foofu moom wérut xam naa mu ngi si jublu xadisu Saad ibn Abi Waqaas mu ne dafa ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fekk seen soxna soo xam ne dafa yor ay xeeram di compter zikr yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah bi ma fi jógeeg léegi day wax naa fi loo xam ne moo ëpp li nga fi wax subhanallah adada xalq yi wax ko ba zikr ba jeex xadis boobu wérut boo xoolee aljuzu al awal ci silsilatul ahadis daifa bu Cheikh Nasiruddin al Albani da nga gis ne riwaayaat yi mu indi yëpp indi na ko waaye du xadis boo xam ne bu wér la kon kooku mënuñu cee sukkandikoo ngir ne nit ki daf koy jëfandikoo ci kurus ala kulli xaal kurus dafa bokk ci li ñu tudde wasaa'il sharia dafa am loo xam ne mooy jaamu yàlla gi ci boppam am loo xam ne mooy moyen bi nit ki jëfandikoo ci jaamu yàlla gi moyen boobu muy jëfandikoo nag benn bunt bu am solo ci buntu fiq ñi koy tudde al masalih al mursala dafa aju ci moyens yi maanaam moyens yi al masalih al mursala foofa la jëm waaye nag al maslaha al mursala dafay am ay charte biñ ca teg maanaam charte bu njëkk ba mooy mbir moo xam ne wóor na ne am na maslaha charia muxaqaqa mbire ngi moo xam ne daal am na ci charia masla mu wér moo xam ne am na njariñ su ma la ci bëggoon a jox misaal dama lay wax ne microphone bii sama kanam defe naa njariñam moom ñëpp xam nañ ko wala déet ñëpp xam nañ ko su fekkoon ne ñi war a dégg ñëpp nit ñiy jëfandikoo seen i kàddu pour ñu mën a àgg kon coono bu métti métti dana am wala la daan am mu njëkk ci muhaddisoo nii li ñuy tudde istimla maanaam nit di wax keneen di jot li keneen di jottaliwaat lu mel noonu kon dana mujj bari waaye nag ñi mën a am jumtuwaay boo xam ne nit ka day wax rek mu àgg ca nit ña wala mu gën koo rëy sax ba doonub rajo faf di wax ñëpp di wax ñëpp di dégg kon kooku njariñ la maslaha charia muxaqaqa am na foofu maanaam njariñul charia kooku mooy benn charte bi de jeexagu beneen bi mooy mu bañ a am benn nos ci charia boo xam ne daf koy itibaar wala mu koy ilga maanaam benn texte bu ñëw ci charia boo xam ne dafay wane ne lii ci charia la bokk wala texte boo xam ne day ñëw ne lii bokkut ci charia ndax su fekkoon ne benn texte ñëw na ne kii ci charia la bokk su boobaa day génn daairab li ñu tudde almaslaha almursala bu boobaa sunna lay nekk wala mu nekk waajib wala yu mel noonu waaye duutuñu ko tudde loo xam ne intérêt bi muy jariñ moo tax ñu di ko jariñoo subtexte ñëwoon ne lii bokkut ci sharia itam su boobaa jëfandikoo ko du dagan kon ngir nu mën a wax ne lii ci maslaha mursala la bokk kon faaw mu doon loo xam ne texte dikku ca ba noppi nag day amal diini ji njariñ waxuñu njariñul doomu aadama waaye njariñul diini ji ci boppam te bi mu indee njariñ loolu mu bañ a indi nag beneen lor ndax kat léeg-léeg mu indi njariñ ba noppi indi lor day indi ay njariñ ba noppi nekk xaaliyan min al mafasid alcharia ba tey kurus nag buñ ko jëlee xool ndax ci daairatu wasaa'il yi ci la bokkam déet dëgg la moyen la parce que ki bëgg a wàññi yor dara di ko wàññee kooku moyen la wala déet ndax am nañ benn texte bu ñëw ci charia boo xam ne day wax ne jëfandikoo leen ko rus amut yonent bi jëfandikoo ko saxaaba yi jëfandikoo diglewu ko itam waaye ndax am na benn texte bu ñëw di ko tere ba tey ne bu leen jëfandikoo ko rus ba tey amut gisuñu ko am na njariñ ñu ne am na njariñ ñi yem foofa képp yem ca dañuy jëfandikoo ko rus ñi yem ci lii ma wax a gon dañuy wax ne ko rus ci al masalih al mursala ci la ko waaye li ma mujj a tudd mooy bu mu am benn mafsada foofa la ñuy tege kurus ci suuf moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wàññe daana ko daana konte daana wàññe ay zikkaram nu mu ko daan wàññee ay baaraamam ndax yam na ca loola déedéet waxaat na nee na na ngeen di zikkar bi na ngeen koy def ci seeni baaraam fa innahunna mustantaqatun yowma alqiyaama ndax baaraam yi bu ëllëgee dañ leen di seedeel si kar bi ngeen doon def bu ëllëgee ndax loolu kurus mën na ko wala ay xeer wala leneen am na ñoon sax dem nañ ba jéggi yooyu ak weñ la ñuy yor goo xam ne def ni kurusi weñ yooyu nga xam ne moom la ñu foofu yor nga xam ne ah ay seconde lay génn bon kon mafsada bi mu am muy muy muy lim lay yàqal yow jullit bi mooy roy gi nga naroon a roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy sikkar bi mu daan def ci loxo ndey joram ba sallallahu alayhi wa sallam seede gi la baaraam yi naroon a seedeel mu dox sa digganteeg loola kon kooku mooy mafsada bi dox ci seen diggante su fekkee dañoo bëgg a jàng mbirum kurus usuliyan foofu lañ koy jaare su dul foofu it nag am na yeneen yu bari war a tax jullit bi bañ koo jëfandikoo moo di kurus fu mu jógee ibnul xaaj ci téere bi ñu wax almadxal nee na jullit yi mosuñoo xam kurus lu dul bañ demee andalus doon ay jullit dëkk ak làbbe ya ca nasaraan yi ñu gis ñuy takk ay kurus di ko wékk ci seen i baat jullit yi itam di wékk ay kurus ci seen i baat di leen ko royee ba mu yàgg ñu faf di ko wàññee la ñuy wàññi kon foofa la jóge dugg ci biir jullit kon loo xam ne day dox sa digganteeg la yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon def ba noppi amul benn njëriñ beneen bi ci des mooy li ñuy wàññi ci zikkar yoo xam ne yu jar wàññi la lu jar yor moyen bu dul ay baaraam da cee néewut xëy na loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ndax benn sikkar boo xam ne dañ koo tënk mu ëpp téeméer boobu man gisaguma ko su ëppee téeméer rek dañ koo itlaax lu ñu itlaax mooy mooy wàññal loola soob jërut sax wàññi toogal rek heure bu la neex nga wax lu baree baree bare rek ba sa temps jeex yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ko wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu lmulku lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ci bis indi nga yool bu toll ne yoolu ku goreel ab jaam jaam bu bokk sax ci ñu tedd sëti Ismaïl suñ leen jàppoon ak njaam mel nga rek ku aw def yoorub ku ko libéré te it kenn ëpp la aw yiw ca bis booba lu dul koo xam ne dafa def lu ëpp la nga def xam nga foofu ubbi na bunt ba kon mën ngaa def lu ëpp fukk mën ngaa def lu ëpp téeméer mën ngaa def lu ëpp junni mën ngaa def lu ëpp ñaari junni la la sa waxtu may mën nga koo def ci laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir waaye doo sonal sa bopp nag ci jéem koo wàññi ndax yàlla mu ngi koy waxal xam na ko moo tax Abdullah ibn Mas'ud ba mu fekkee gaa yi ñu naan nee leen laa ilaha illallah téeméer nee leen nangam nee leen nangam dane leen bu ngeen di lim lim leen seen i ñaawteef waaye lu baax li moom ki ngeen koy defal xam na ko ki ngeen koy defal xam na ko lim leen seen i ñaawteef waaye bu leen lim leneen lu dul loolu kii def ne koo xam ne dafa def li ñu tudde zihaar nee na jabaram daal moog yaayam la yemale wala moo ab séeram la yemale loolu moom la ñu tudde zihaar kooku la ca borom bi tabaraka wa taala wax xam ngeen ko mooy ki wax loolu jabaram ba noppi bëgg caa delluwaat moom kafaara moo ko war goreel ab jaam wala woor ñaari weer wala leel juróom benn fukki miskin waaye nee na kii kii defu ko nag maanaam def na wax na loolu ba àggal daal continuer rek toog delluwut ci jabar ji deful kafaara bi itam maanaam maanaam ba kañ maanaam loolu loolu loolu maanaam laaj bu am solo la maanaam laaj bu yéeme la waaye bu am solo la mooy ban solution la ñuy am foofu wax na ko ba àggal ndax est-ce que day doon passé ñu ne kon ndaw si daa nekk ci idda bu passé mu jeexee ñu xam bu idda ji jeexee ñu ne kon dem na yoonam wala nekkul ci passé day toog rek di xaar waa ji ba ba muy wax ne da koo fase carrément wala ba ba muy def ko faara bi pour mën a dellusi ci moom li wér mooy zihaar du passé zihaar ci boppam du passé ki wax jabaram loolu fasewu ko waaye it ñi xam ne sharia du ko bàyyi muy toog di xaar rek te du yem fenn am na fu muy àgg ndaw si ci boppam day ñëw kalaame ko ñi woo ko mu ñëw ñi ne ko benn nga wax ndax da ngaa fase sa jabar ji wala de bu dee da ngaa bëgg a dellu ci moom nga dem def ko faara mu daal di ciy def benn fi saa si kon kooku àll wàllu atte la dañ koy atteeg moom benn mu def lii wala mu def lii waaye nag du toog di continuer rek di wéy wallahu taala alam kii def ne am mbooloo mi ngi moo xam ne dañoo dajale alal yoo xam ne xaw naa takku ca seenub dëkk alal jooju dañ caa jublu gas teen wala tabax jàkka wala def ci école alal ja daal waa dëkk ba ñoo ko bokk dem na ba mat nisaab moom alal ji maanaam li ñu war a génnee asaka mat na ko am na ci seeni loxo itam at ndax dañ koy génneel asaka li ñuy tudde amwaalul jamiyaatil xayriya ak amwaalul awqaaf alal ji nga xam ne mbooloo mee ko moom bokk ko mu nekk ci loxoy ay association wala mu nekk li ñuy tudde waqf jooju alal duñ ko génneel asaka ndax yooyu ci boppam mën nañoo jël asaka def ca te it asaka dafa am benn charte boo xam ne dafa bokk ci yi tax ñi koy génne muy li ñu tudde al milku taam muy moom ko moomeel gu mat sëkk mooy tax ñu mën ko génneel asaka te alal jooju nga xam ne association bi moo ko moom kan moo ko moom mënuñu la ne diw sàngam moo ko moom moo génne asaka kon jooju alal moom asaka waru ci noonu la ko borom xam-xam yi ubbee wallahu taala alam kii mu ne bu iidu milaad almasih alayhi salaam dikkee benn waaye ngi boo xam ne dafa rendi daal dara yóbbu ko ci këram ñu lekk daal pour xéewlu ci ci bis boobu ndax loolu daraa nga ca waaw waaw daraa nga ca lu dul su fekkee ne moom dafa baaxoo woon bis bu set muy rendi dara ñuy xéewlu mu dikk rek dajeeg bis booba waaye su fekkee ne loolu mii ni ñu ko fa woon ba bis boobu mu ñëw tànn ko di ko defandoog ña ca des kooku ma ngay def njaaxum ndax ma ngay nuróog ñooña moo xam lan mooy yéeneem waaye la muy def kooku ci boppam munkar la bàyyi ko la war a def ki nga xam ne dafa nisar woor fukki fan léegi mu ne ba noppi mu fàtte ko bi mu ko fàttali ko rek nee na mu commencé di ko fay ndax da koy war mu toftale ko wala sañ na koo tàqale maanaam bu wooree juróomi fan bàyyi ba mu yàgg mu wooraat juróom bi mu koy nisar de bu fekkee dafa ne rek woor fukki fan te waxut ne yu toftaloo laa nisar su boobaa toftale gi du nekk waajib du doon lu war su ko toftalee lu baax la su ko toftalewut itam lu baax la ginnaaw dane woon danaa woor fukki fan te woor na fukki fan su boobaa toftaloo gi toftaloo gi du ci nekk ab charte waaye nag ba muy nisar su fekkee ne daf ne nisar na ma woor fukki fan yu toftaloo kooku moom day war mu joxe ko noonu da koy war a joxe noonu su ci dara daggee rek day tàmbaliwaat ba ba muy woor fukki fan yoo xam ne yu toftaloo la wallahu alam omar jox ko microphone fadal
ñaan borom subhanahu wa taala mu gudd sa fan baar ci li nga wax sànq ñoo xam ne amaana mun nañ dem ci seeni wax dem ba ne du yàlla la sama sama laaj dafa aju ci wàllu ci wàllu tax est-ce que am na lenn loo xam ne jàppee nañ la ji wala wax ji te bu kéefër bu kéefër yoo xam ne mu ci tàbbi dañuy wax ne kenn du la iqaamatul xujja maanaam duñ la leeral léegi moom dugg nga ci kéefër maanaam ci ak li nga xamante ne moom la ñu tuddee al maadum diin bi darura est-ce que dafay nekk loo xam ne dafay walaablu ci mboolemu suuf si wala ci yenn gox yi day walaab walaab ci yeneen ci loo xam dafa nekk loo xam ne jànqal wala jànqal ahsant li ñu tuddee takfir mu yéefarloo nit dafa doon masala boo xam ne moom itam bu mat a bàyyi xel la dafay wax ci masalam ki dem ba ne diw yàlla la wala yu mel noonu boroom xam-xam yi dañuy wax ne nit ki kéefër mën naa génne ci làmmiñam te du doon yéefër moom ci boppam mën naa wax kàddu kéefër wala mu jëf jëfi yéefër te fekk nekkul yéefër lu tax ñu ne day fekk li ñu tuddee iqaamatul xujja amut maanaam xamul bu fekkee xamu ko woon xam lu woon ne loolu kéefër la mu wax ko wala dafa juum wax ko wala dañ ko cee forcé mu wax ko wala mu jëf ko su boobaa yooyu yépp du doon du doon kéefër donte wax na kéefër wala mu jëf ko yu bare bare yoo xam ne nit keen koy wax mu wóor la ne yow lii waa ji li mu wax kéefër la loolu doo ci mën a sukkandiku rek pour ne diw sànga mu yéefar la lu dul da laa wóor ne moom mii xam na ne lii muy wax kéefar la maanaam il faut ñu jàngal ko ko ba mu xam ko ñu ci bari dañoo yàq seeni bopp amaana la muy wax nga di ko dégg dafa ne kéefar la sax amaana moom dañ koo jàngal ne ko loolu tawxiid la foofu mu jàpp ne tawxiid lay wax kooku moom iqaamatul xojja ci moom mooy lijjantiwaat ko ba mu delsi ba xam lan mooy tawxiid ak lan mooy bokkaale liggéey bu rëy la muy liggéeyu iqaamatul xujja dadi nag lam wax tam doon kéefër moom moom kéefër la ak lu mën a xew nit ñi war nañoo yëg ni kéefër la ndax nag am na yoo xam ne ku ko wax ku mën a doon du aaja ñu naan iqaamatul xujja ak dara dañ naan yéefër la waxukaay yooyu borom xam-xam yi tudd nañ ko waaye it téewul dañ koo tënk dañuy wax ne faaw ñu xool nit ci fi muy dund am na ñoo xam ne fa ñuy dund lislaam dafa tumuranke ba dara dara lislaam nekku kooka mën naa fekk yoo xam ne yu fés la yoo xam ne jàpp nañu jullit yépp war nañ koo xam te fekk moom xamuñu ko parce que lislaam dafa tumuranke xamuñu ko tasaaroowu fa mosuñoo dégg tawxiid xamuñu ko dunduñu ko yeneen la ñuy def kon foofa fa nga gën a war a mën a wattandikoo ci takfiir ndax dara ci xujja taxawul fa ñoom nga ñëw nag ci mujtama bu mel ni bii nga xam ne wóor na la ne lislaam a ngi fi moo xam nu lislaam meloon nag waaye junni at moom am na ko fi kon moom du fi gan kon am na lu ñuy tudde maalum min diin bi darura mooy loo xam ne jullit yépp war nañoo maase ci xam ko jullit yépp war nañoo maase ci xam ne naan sàngara dafa xaraam kon jullit bu taxaw ne naan sàngara dagan na kooku kéefar la maanaam génn na rek doon loo xam ne dañuy wax ne bàkkaar la waaye kéefar la day daal di àgg ci kéefar lu toll ni kaamilub suñu borom tabaraka wa taala bi ormaal ji ñu ko war a ormaal jullit yépp war nañ koo xam fii jullit bu tegoon kaamil bi jóg taxaw ci kaw wala yaasu billah kéefër dal ni ñëw yonent bi ak yàlla ak seen maqaam ak seen fañ leen war a teg su sab su su saagaa yonent bi wala iyaasu billah wala borom bi tabaraka wa taala kooku borom xam-xam bi neen tàbbi na ci kéefar tuubaat dellusiwaat rek moo koy indi kon war gi julli war jullit yëpp xam nañ ko koor war gi mu war jullit yëpp xam nañ ko kon weddi maalum min addiini bi darura fekk loo xam ne jullit yëpp xam nañ ne lii noonu la nga taxaw weddi ko kooku day tàbbal nit ki ci kéefar la ko ca mën a génne it nag mooy tuubaat dellusiwaat jaat siraatul mustaqim kenn nekke noonu jëf yooyu ma tudd lu mel ne toraxal alquran ci anam yi ma ko tudde wala wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax yu mel ne yooyu wala borom bi tabaraka wa taala mën naa dem ba àgg sax ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñooñu ŋàññi leen day àgg ci ŋàññi yonente bi ci boppam ndax yàlla nee na ñu baax ñi ñu baax ñu jigéen ñi ñu baax ñu góor ñi ñooy seen i borom kër ñu bon ñu jigéen ñi ñu bon ñu góor ñi ñooy seen i borom kër kon boo ne ay soxnaam baaxuñu kon mel na ne nee nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam baaxul kon yu mel noonu yooyu moom la ñu tuddee maalum min ad-diin bi darura waaye nag maalum min ad-diin bi darura comme ni ma ko waxee dañ koy tënk ci fi nga xam ne maanaam environnement bi nga xam ne diinee nga fa di fa dund loolu nag borom xam-xam yi ñoo koy nattale ba xam ne lii xam nañ ne béréb sàngam bii ku ko fi wax da ngaa féeteerlu laan ko waaye xam nga ko ñoo naan béréb bii ku fi wax nangam itam loola mën naa nekk ndax amuñu xam-xam xamuñu dara lislaam nekku fa gan la fa wala kii jëmm ji xëy na sax fii lislaam fi nekk waaye xamagu ci dara ndax démb la tuub dugg ci lislaam mën naa waxu njaaxum suñ ko jàngalul kon yu mel noonu yu mat a bàyyi xel la wallahu alam su amee beneen
ndax dina dagan ci jullit bi muy bokk ci xew-xew yi nga xam ne ay xew-xew bidaa la jox na ci misaal lu demee ni al mawlidu nabawi fekk jubluwaayam mooy jokk mbokk wala daal di jëfe ndénkaane ay baayam
dem bokki ci xew-xew yooyu ñu tudde xew-xewi diine tam doon xew-xewi biddaa ka ciy bokki dëgg la al umur bi maqasidiha maanaam mbir mu nekk la ko tax a jóg moo ko tax a jóg ki nga xam ne daa jóg de yor marchandise am dem di jaay nga xam ne loolu dong nga ko fa yóbbu dem taxaw ci penc mu jaay marchandise am mu jeex mu dem yoonam kooko su ne looloo ma tax a jóg moom kooku kenn mënu ko weddi manees naa jàpp ne loolu waaye nag ki ne damay doxi bokk ñëw dugg ci biir mbooloo mi di dugg ak génn ak la ci la ci dem ak ñëw kooku kuñ tuumaal la lu tax mooy amoon na weneen waxtu woo xam ne war naa mën a dem doxi bokk daa waroon a jóg ci jamono yooyu dem doxi ak bokkam ndax dox ga ci lay gën a mate nu muy gën a mate mooy bokk yi danañ xam ne kii kat dikkandoowut ak mbooloo mi waaye daa jóge ca këram ci waxtu woo xam ne dara xewut ñëw dox si bokk kon mën nañoo gëm ne day doxu bokk kon ci la bokk ga di gën a dëgëre kon waxtu woowu mooy waxtu dox bokk gi waaye nag jekki ba nga xam ne yëf yi xumb na mbooloo ma nekk ci biir yëf yi nga ñëw raaxaloo ci seen biir ni doxu bokk moo ma yëkkati ah kooku di yàlla dong moo xam la lay yëkkati waaye nun doomu aadama yi xool ci kaw de dañuy jàpp ne xew-xew ba ci boppam moo la yëkkati waaye dangaa mbubboo dangaa mbubboo loolu wallahu alam
dafay wax ne ki nga xam ne dafay mooy yàlla si wéetee ndax mooy yàlla ci wéet loolu day dugg ci bokkaale
ala kulli xal mooy yàlla ga ci boppam su fekkee ne doonul ak bokkaale mooy yàlla ga ci boppam su fekkee ne doonul ak bokkaale moom mooy yàlla ga maanaam wéetul di jaamu aw xiram wala muy def loo xam ne ak bokkaale la du tax loola soppi ko ak bokkaale maanaam mooy yàlla ndax lu gën a bari ci ñuy ñuy def mooy yàlla moom ci wéet lañ koy def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne yàlla dana suturaal ñëpp ba mu des ñoo xam ne almujaahiruun ñi nga xam ne suñu def bàkkaar dañ koy jëri ba ñëpp xam ne def nañ ko wala bu ñu ko defee baagal génn di ko waxtaane waaye ña suturaal seen bopp làqu def seenu mooy yàlla loola seen diggante ak seen borom la buñ tuubee borom bi tabaraka wa taala tuuba jéggal leen allahu alam bismillah joxal kooku ñu mu jéego boobu ñu naan rahmatullah salaam ci wàllu azaka lañ bëggoon leerlu mooy ndax yi ñuy yar maanaam ginaar yi ci kër yi ak xar yi nga xam ne dañ leen di yar ci biir kër yi ndax dafay bokk seen azaka dafay tolloo ak xar yi nga xam ne moom la ñuy yar ci ci sàmm gi loolu rek lañ doon moom lañ doon leer dañuy charte ci asakay jur mu doon jur goo xam ne day génn di dem di fori dañ koy wëtal muy dem di wët di jof maanaam di dem di delsil boppam di foril boppam di ñibbisiwaat loolu mooy chartub asakay jur waaye su fekkoon ne dafa jël ak juróom tëj ko ci biir këram di jënd ay xont di leen jox fere yu bari yooyu mu ci def moo tax lislaam waaye falal ko teggil ko asaka jooju lu dul nag su fekkee daf cay commerce yori ganaaram di jaay ak a jënd wala ay nenam wala ay xaram wala ay nagam di jaay ak a jënd wala sax soow may jóge ci nag ya su boobaa du asakaal nag wa wala xarma wala ganaar ga waaye xaalis ba ciy jóge bu boobaa ci orudu tijaara lay dugg maanaam day mel ne kuy commerce na muy asakaale noonu lay asakaale bis ba nga xam ne ci lay génne asaka ci at mi daal bu dikkee day xayma la mu am ci xaalis mu génneel ko asaka la fa nekk nag ca xar ya nga xam ne ñoom lay ratt ak di jaay ca seeni yàpp ak di jaay ca xar ya ak nag ya fa nekk mu di leen ratt wala ganaar ya fa nekk di ko nenal yooya du leen ci kalkinaale ndax ñooy machine bay génne la muy jaay ak a jënd mi ngi mel ne ku yoroon bitigam rek di jaay ak a jënd buy xayma marchandise ma xaalis ba mu yor du ca boole jëmmi bitig ba ci boppam donte moo ko moom du ko xayma waale frigo ba fa nekk mu jël ca glace ga di jaay du xayma waale frigo ba waaye jëfil la muy jënd ak a jaay ci boppam loola lay xayma génneel ko asaka wallahu alam naam ala kulli xaal ci ñaan moom buntub ñaan moom dafa yaatu nit ki sañ na ne yàlla may ma nangam waaye nag tekkiwul ne loola daal day am mën na ko ñaan te du ko am surtout nag borom xam-xam yi dafa am lu ñu tudde jalgati ci wàllu ñaan mooy ñaan loo xam ne wóor na la ne du am mukk ñaan loo xam ne xam nga ne du am kooku ci jalgati la bokk ci wàllu ñaan dadi nag mënoo àtte kay ñaan moom ne xamoon na loolu xam na ne lii du am yor sa nit ku baax di ko ñaanal ne yàlla na fi sax ba faaw kooku ci jalgati ci la bokk ndax wóor na leen du fi sax ba faaw moom ñaan lu munta nekk la ñaan dara mu yem ak màkkat ci kaw suuf itam loolu ci boppam ci jalgati ci la bokk ndax beneen borom bi tabaraka wa taala dogalut te du dogal beneenub dëkk boo xam ne day am tiraanga ji nga xam ne moom la màkk am ma di ko am loolu amut kon kooku ci boppam ci jalgati ci lay dugg naam salaam loolu ci natt yi nga xam ne nattoo nañ ko société yu mel ni fii ci la bokk maanaam ci jafe-jafe yu mag yi nag ci la bokk ndax su fekkee ne mbir ma ci boppam dem na ba àgg ci muur nit ki ba nangootu la déglu dëgg ci ku dul ku dul fenn rek la ko nangoo déglu su boobaa li ñu tuddee iqaamatul xujja ci boppam mooy jafe waaye su boobaa noonu duñ sonn lool ci jéem a jéem a àtte nit ñi nit ñu lënt ñooñu bul sonn ci jim leen àtte ndax kenn du la laaj seen mbir te li tax bunt boobu ma tawattandiku ndax da nga koy àtte ne bi yéefar la wala ab jullit la wala yu mel noonu te ginnaaw xadaa nekku fi su fekkee ne xadaa chari moo fi am nga xam ne dañuy juger nit ki ndax dafa am yeneen yi ca war a tegu ci lu aju ci wàllu doon nag miraas ak ci armeel yi ñu koy denc ak yu mel noonu su fekkoon ne attekat yu mel noonu ñoo fi nekk di atte charia kooku seen responsabilité li ñu atte ñu mel noonu